ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq ñëpp jiital ci nuyoo bi mu Cheikh mënta Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu njabootu Cheikhul Xadim gépp ak jullit yi fu ñu mën a nekk eh, di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne danañ ñu baaxoo topp ci seen jataayu gàggantiku gii di am ci weer wu nekk le 23 ak la 9 ci weeru tubaab bu nekk eh, indi ay bindi gàggante ko ay laaj yu aju ci diine yoo xam ne nit ñi danañ ci jariñu euh, te duñu yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci GMT TV muy chaîne de la grande mosquée de Touba wala MKTV di seenu Muxaddamatul Xidma bu jumaay Touba euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen sant it ci ñaan yi ak wax yu baax yi nga xam ne yéen a ngi koy wax di ko jëmale ci sëriñ bi ak di ko jëmale ci waxtaan wi Eh, mbokk yi ñëwaat nañ fii ci Darou Salaam daam ci ka kër Serigne Mbacke Abdourahmane moom mi nga xam ne moom la ñuy indil suñ binti gàggantiku yi ngir mun ñu ci gàggantiku ci suñ diine eh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu eh, te di la dalal salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ni ñuy bàyyi xel ci ëttub xam-xam bi ni nga ko waxee te ngeen di ko taxawee di ñaan suñu gën leen a sàmm gën leen a dëgëral di siyaare bu baax Mawlana Cheikh Mouhamed Mountakha di ñaan suñu borom koo sàmm koo dëgëral di nuyu sëriñ nga xam ne liggéey bi ci loo xam ne nekk ak mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom liggéey bi sëriñ Abdoulaye ñaar way dencante waaw hmm. jërëjëf eh, eh, mbokk mi dafay dafay laaj mu ne moom daal dafay dafay liggéey xam naa ci lu jëmale ci massa ay ay ay kawas wala ay sang ci lay laaj nee na ndax moom sañ na bu génnee di liggéeyi jëm ci usine ba muy liggéeyee sol ay kawas kawas yu gudd yu romb dajoor bi su xasee jàpp ci këram ba sol kawas yi bu demee fa muy liggéeyee ndax suy jàppaat sañ na bu ajee ba ak ci loolu moom massa ko rek continuer di julli. waaw ci mazhab Imam Malik sëñ Abdou Lahad ay hmm. kawas kenn du ci massa. Hmm. ci mazhab bi ñoom li wax xuf. Hmm. dàll woo xaw ne daa am charte boobu la ñu a a masa hmm. jàngale woon nga ko fi sax nañ ko hmm. fu mooy dàll yi nga xam ne der lay doon hmm. wu laab wu ñaw wu ñaw te day muur farata ji nga xam ne boo doon boo doon jàpp moom nga raxas day doon aw bot dal te dañ cee mën a dox yaatu bopp xatlu bopp ak sart yooyu ñu wax yëpp loolu loolu loolu moom la ñu a masa waaye bu dee kawas des ci masa bu dee kawsu des ci masa ci masa bu mali ndax su jàpp da ko war a summi da koy summi raxas hmm. macha allah euh, mbokk bi dafay laaj mu ne moom euh, borom këram dafa dafa dafa du gis silmaxa la waaye moom soxna si day nag da koy wommat di ko yóbbu muy julli ji julli mbooloo boo xam ne day am ay sàppe waaye ñaare su ko yóbboo ba teg ko day toog fenn di julli foo xam ne léeg-léeg mën naa jiitu ay góor wala ay góor jiitu ko ngir wettali borom këram boobu maanaam mu ne ndax loolu muy def day doon loo xam ne ruxsa lay doon lislaam daf koy may wala daf ko war a bàyyi foofu dem ci jigéen ña jël si waat ko damaa jàppoon sax na jàkk jëmu jullee moom ba ci bunt ba mhm. war naa maanaam góor gu ko àggaleel waaw sëriñam boobu ba ca sàppe ya moom mu toog fi jigéen ñi war a nekk bu ba sëlmalit ànd ak moom bu indil ko ko mu àgg si mhm. waaw bu ko ko def nga lu baax amu yiw mhm. waaye fekk nekk fa nga a nekk waaye jigéen du ci biiru góor ñu eh, dafay jullee ngir laye ne góoram borom këram day sëlma xam moo tax mu bu ko wettali jàkk ji moom ñam fu bokk di julli la doy nañ wetal yàlla moom jàkka ji <laughs> te du fu wuutee doy na wetal kon bu ko indee ba ci bunt ba rek na ko na xool kenn ca eh, waa jàkka ja mu ne ko yóbbul ma sëriñ bi ba ci sàppee uh-huh. bu sëlmale yi kooku mën na ko indil wala keneen mu ànd ak moom dellu ci kër uh-huh. jërëjëf uh, mbokk yi dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafa julli ci ginnaaw imaam te imaam gi faatiya ji baaxut ndax kooku julleem da yàqoo la waaw bu fekkee ne ilimaan la ci masab Maalike ilimaan joo xam ne day yàq ci faatiha te teyu ko mm-hmm. julleem baax na ku roy ci moom sa julli baax na waaye sib nañ bu melut ne moom day mm-hmm. roy ci moom mm-hmm. bu fekkee teyu ko bu dee day yàq te teyu ko nag julleem baaxut ku julli ci ginnaawam sa julli baaxut ñàkk tay ji nag ñaar la mooy benn laamam yooyu dafa mënta jàng araf yi wala daa juum wax lu mu warta wax su boobaa it julli ko dana baax incha allah ci masab bi moom ilimaan ak ki roy ci moom waaye nag xam ne kii eh, dafa lottu ci jàng ni war a jànge mm-hmm. te yow lottoo ca ngay roy ci ginnaawam te xam ko loolu sib nañ ko moom mm-hmm. macha allah jërëjëf eh, bi kii dafay wax ne naka la ñuy a déggee eh, ne anna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiite na lambiyaa yépp ak julli ci masjidil aqsa mm-hmm. ci guddig laylatul isra wal mihraj te boobu fekk na sunu borom farataale ko julli te nee nañ ba mu demee yéeg ci su boromam la koo jox julli kon loola gan julli la ak daal loolu daal ko ci leeral. yooyu day sëriñ ci am benn. Mhm. julli juróom lañu farataal. Mhm. ci rañaan ma waaye julli moom nekkoon na farata saxaaba yi julli nañ ca màkk ak yëm salaam njëkk loolu di am. te ni ñu jullee lañ jullee mën naa wuute ak waxtu yi ñaari suba ngoon la woon waaye julli amoon na moom. Mhm. julli amoon na kon xëy na mën naa am googu la ñaareel ba am ñu wax ne loolu noonu du ba muy dem de moom ca asamaaw ya la gisee yonent yëpp ba mu dëppee ne lañ ànd ak moom ba ci baytul maqdis mu jiitu leen fajar am na ci riwaaya di ñoo xam loolu la ñu saxal xam ne ko day mel ne kon bu ñu farataale ci moom julli ba wàccee fajar la leen jiite foofu mm-hmm. waaye lu ci mën a xew moom sax na ne yonent asalaam baytul maqdis jiite na fa ndax uh-huh. yonent yëpp la wala ñenn la ci ñoom lu ci nekk am nañu ko wax uh-huh. waaye daal jiite na fa ay yonent julli googu nag bu dee jàpp ne uh, du julli bokkut julli juróom uh-huh. mooy na julli yu ñu santoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk muy ñuy farataal mu julli juróom julli juróom lañu faraatal boobu waaye daan nañ julli suba daan julli ngoon yenn rawaay yoo xam ne ba mu dëppee la it gise naa ñoom ci asamaan yi ba mu dëppee na ñu ànd ak moom ba mu agsi baytul maqdis mën na jàpp kon julli suba la waaye sax na ne moom jiital na leen julli. barakallahu fik jërëjëf euh, mbokk yi dafay laaj mu ne lenn ci nit ñi euh, dañuy jot imaam ci ginnaaw bi imaam yëkkatee euh, agrocom ci rakka bu mujj bi waaye léeg-léeg dangay gis ñoo xam ne suñ suñ suñ ñëwee dañuy taxaw liqaamaat te moom jàpp na ne xëy na dafa war a dañoo war a jóg rek taxaw te duñ liqaam mu ne ndax ñàkk liqaam gi dana yàq julli gi wala déet waaw xam nga nit ki lu baax kenn doo ko tàmm tàmbali di ko yàq mhm. moom bi ñu ñëwee kàbbar ci ginnaaw ilimaan mhm. hmm? dugg na ci julli gi mhm. kon bu benn rakkaay dugg na ci julli gi moom kooku bu imaam sëlmale day jóg wax allahu akbar julli ñeenti rakkaam bu dee julli ñeenti rakkaam waaye tàbbi na julli gi bu noppi te loolu mu def noonu maanaam am na ngëneel lu ëpp ëppee yow nga jékki-jékki woon benn sa julli bopp xam nañuy wax sax ci yeneen ngir yi loo bokk ci jullit lu mu néew ne la nga am jullit mbooloo. barkeel am na njëriñ bu jàpp rek ne du fi dara day tàmbiwaat foofu xëy na fenn lañ koy waxee lu mel ne bu doon ajjuma yoo xam ne euh, daa yëg ne na jeneen jàkk ju ko sóoriwut te jullee guñ hmm. mën dagg julli googu dem julli ji ajjuma ndax bu dul loolu tisbaar lay julli hmm. waaye bu dul bu dee julli ci des moom bu ilimaan sëlmalee te hmm. julli julli gu mat waaye nag du liqaamaat ndax tàmbali na julli gi ba noppi jërëjëf euh, kii dafay laajte mu ne ndax dana wér ci jullit ajjuma ci bàyyi iqaam te tay ko wala ndax dana wér ci maamoom ji nga xam ne euh, dafay ànd ci imaam joo xam ne liqaamut mu daal di yeelu liqaamu boppam li tax mu laaj laaj bi nag nee na dafa dem ci jumaa joo xam ne dafa doon julli xëy ne dañoo wuute ngir mu gis ne ñoom bu ñu julli ajjuma duñ liqaam waaye moom saa suñ ko defee day liqaam ci suuf mu ne ndax bàyyi liqaam gi dana wéral julli wala liqaam gi ba liqaam ci suuf dana wéral jullee moom it waa xam nga liqaam moom ci mazhab imam Malik sunna <coughs> mu akkada la ci kuy julli moom kenn mhm. sunnatu ayn lay doon bu dee mbooloo sunnatu kifaaya la mhm. kenn dafay mu doy bu dee kuy jiite ay goneek jigéen it sunnatu ayn lay doy ci moom ndax moom la liqaam di sunna ci moom mhm. waaye nag euh, dañuy wax ne soo ko bàyyee woon te tay koy julli ko baax sunna la mu akkada bu nekk ci bitti julli gi ku bàyyi woon te tay koy julli gi baax waaye nag loolu moom taamuwuñ ko ndax bàyyi aw yiw la mhm. waaye nag du yàq julli li ci des moom moomu di wax bu fekkee ne daa liqaam njëkk ndax liqaam day jiitu kàbbar armal mhm. bu fekkee ne ñu kàbbar ba noppi muy liqaam nag liqaam amatu fa maanaa mhm. ndax liqaam bi ñu santaane da koy def ndax liqaam xeetu yëgle ne yëgle ne ñi ngi tàmbali julli gi la xam nga noddu ak liqaam dañ leen tudd yëpp noddu nodd gu njëkk ji ngir xam la ne waxtu wi tàbbi na mm-hmm. dañuy bëgg wax ko ca kaw te diibal ko mm-hmm. ndax mbooloo mi ñu koy dégg luñ gën a yaatu moo gën mm-hmm. bu dee li xam nag dañuy bëgg ñu baral ko te jërul sax kawel ndax waa jàkk jee ko moom mooy yéen ñi nenti bi jàkk ji léegi bisimilah ñu tàmbali julli loolu nag day mel ne euh, bu fekkee ne ilimaan daa kàbbar ba noppi nga di ko def amatul njëriñ kon boo nekkee ci foo xam ne ñoom li xamuñ ñàkkalee xam du yàq julli fekkee nag xëy na njëkk njëkk ñuy julli la mu def ko wàññiwul dara moom. Hmm. njëkk ñuy kabar ndax su boobaa ni ñu wax ne sunnatu kifaaya la su ko kenn defee ci mbooloom wàcc nañ ci des. Hmm. waaw kon nag bu bu bokkut ak ngir jàkka ja boo ko defee <coughs> donte sa ngir bi def noonu sa dara. nga saxal na ci mazhab bi ne. Hmm. am Maliki roy ci Shaafi'i wala mu roy ci Xanafi wala mu roy ci Xanbali wàññiwul dara. wér na kenn ku nekk ci ngir yi mën ngaa roy sa moom bu ko defee am na ci yoo xam ne sa sa ilimaan nga cee topp mu def nga def ko. jërëjëf sëriñ bi kii laaj bi xam naa mbokk mi dafa mel ne Amérique lay nekk wala wala Angleterre waaye dafa am lu ñu def loo xam ne xëy ne bëgg na euh, xam lu ko ci diineem sant ndax dafa yor taxi taxi boo demee fu mel ne Amérique li ñuy wax xooda la def maanaam da jël sa téléphone nga commander ci taxi wax fi nga jëm ak euh, distance bi ni mu toll su ko defee ñu wax la nangam ngay fay léegi nag société bi nga xam ne moo yor loolu euh, moom taximan bi société bi moo ko ci ëppale maanaam su fekkee 150 dollars la 43 lay jox. taximan bi wala soixante léegi nag moom loolu daf koy te loolu su fekkee ne eh, am na lu ci dagg rek dañ koy yët alamaan bu diis léeg-léeg nag nee na loolu daf koy metti ba ba lieu que mu wàcce taxi bi fi nga xam ne fi la ko société bi wax waaye day dawaat dara loo xam ne wala client bi bu sansee adresse bi day tax du fay loola ay dafa mel ne daal bu koy fayu ci client bi la koy la koy fayu ngir xeex ak société boobu maanaam moom day fayu ko lu ëpp li société bi wax ne moom la war a fay. waaw maanaam bu client bi sensé adresse bi. da koy jaral mu bañ koo wàcc fi nga xam ne fii la société bi wax daal jàll lu bëree bëree bëree bëri loo xam na mën naa am. dana ko ci fayaat ko ci dara waaw. te loolu du hmm. wax ba xam ndax euh, dagan na wala wala wala daganul. Euh, sëñ Abdou xam nga. waaye hmm. euh, Muhammad alayhi salaatu wa salaam daa waxoon ne al muslimuna ala shurutihim hmm. ay julit bu ñu seqee ay liggéey charte yañ tënk dañ a war a tënku Uh-huh. buñ ne yow kat dañ ne la liggéey bi del dawal ku woote wax lii lii lañ koy fayu fayul loola waxtu jotee ñu fay la li war a fay uh-huh. moo tax mu lam mu law te lu law mooy barkeel uh-huh. waaye saa boo ci dugalee ay njuum njaaj dañu faral di wax ne lëntal ak eh, njuum njaaj du tax nga lekk lu dul sa wërsëg xam lu mu jur nga lekk sa wërsëg ba def am bàkkaar ndax fu ne loo mën a def lépp loo jot ba lekk ko sa wërsëg. Mm-hmm. boo jaaroon yoonu normal da nga ciy jot. Mm-hmm. man ngi dañuy wax ne sàcc dañuy yàkkamti rek. Mm-hmm. sàcc bu sàcc dara lekk ko fi ne daa yàkkamti rek bu toogoon fekk ko fa mu nekk. ndax wërsëgam woo xam ne mënu ko woon a ñàkk lekk. waaye nag bu sàcc bu sa yàkkamtee sàcc ko am bakkaar ba noppi te teewut wërsëgam dong la lekk. moo tax yu mel noonu jëru ko te jaam bi su su wa man yattaqillaha yaj'al lahu na ko bàyyi xel fi nekk. te am na ci jëflandi yoo xam ne dana tuublu ay nit Mm-hmm. rawatina ku doon jullit di jëfante ñu mel noonu nu mu gën a te gën a baax ba tax ñu mën a roy ci yow tuubee ci loolu mën naa bàyyi xel bul nekk jàpp rek benn ab ab ab amee li nga wala ab ajir ab liggéey ku ñu liggéeyal di la fay noo mën a naxee ñii rek déedéet fexeel ba ci sa jikko koo mën a convaincre dugg ko ci dii nga def mm-hmm. te it bàyyi xel ne moom li si yàlla bind ci sa jë faw nga jot ci mm-hmm. kon jërut lëntal jërut def lu dul noonu moom jullit yëpp ko war a bàyyi xel contrat bi mu signalal donte te moom xam na ne ñoo ñoo ko ci ëppale ba tax mu engagé ko. waaw xam nga war a kii ca loolu. mu dem ba loolu neexutu ko mu ne kon bàyyi na. Mm-hmm. waaye yaa ngi nangu si tëb ci sart yi. Mm-hmm. loolu war la te ab jullit du war. sagam client bi daal ñee ko sant. Mm-hmm. bu fekkee da ngaa dem ba bëgg gis ni liggéey bi kiiwut nga mën a waxal ñoom ñu nangu laa soppi liggéey nit ba tey baax na waaye dana doon leer ndax bàyyil xel ne alali jàmm nga ci liggéey am loo ci am am luñ ba jot ci loo xam ne na nga ci jotee baaxut. jërëjëf euh, kon mbokk moomu laaj bi leer na euh, mbokk yi dafa dafa def ne moom de euh, dafa jàpp ne daal li mu jort mooy soxnaam si du sangu ba ndax nee na li tax mu jort ko mooy dafa gis ne daal su fekkee jote nañ ba noppi mu dugg ci wanag wi du sangu diggante bi day gaaw gaawaay boo xam ne daal da koy da koy yéem. ba ba tax na moom daal da ciy am ñaaw njort mu ne ndax ñàkk sangu googu ñàkk googu soxna si ñàkk mën a sangu janaaba bu ko defut ndax moom loolu day tax bakkaar di am ci seen diggante wala dana yàq dara ci eh, seeni seenub sëy ak yu demee noonu jërëjëf sëñ Abdou xam nga bu fekkee ne na li mu wax mm-hmm. damaa foog nag la damaa jort moom ab jullit day rafet njort mm-hmm. ginnaaw soxna si dana dugg ci wann yu rek na jàpp ne sangu mm-hmm. bu fekkee ne moom jàngal na ko ni ñuy sangu ba mu xam ko am na masul yëpp nag jàngal ko ba mën a sangu mhm. bi ci des nag nga jàppee ne sangu yàggiwul noona mhm. am na noo koy defee mu yeex waaye la cay farata mënta ñàkk mhm. mooy yéene ji yaram wi nga mattale ko ak ndox ak bomb dégg nga bopp bi xalil ko mooy farata ji dañuy wax sax nit ki bu fekkoon ab piscine la wala ab ab ab dex mu dugg ca nuuru ca yéene sangu ba mu fi mën a ba mu fépp bu yée bu génnee sangu na day wér kon day wér wax rek ne gaaw na doyut naam ko leer ci moom waaw naam lu ko leer ci moom bu fekkee ab julli la xam naa jàngal na ko li ne ci ñàkk sangu mhm. boo jullee du baax ak yi ci aju yëpp da ngay taxaw loolu jàpp naa nit du ko xam ba napp di di di di gàntu sangu ginnaaw dana dugg ci wane xëpp jël ndox rek jàppal ne sangu na mm. bi ci desit nag bu fekkoon te ne sant na moom la ko war ci moom mooy moo di ko jottali di ko wax ndigal yàlla mm. loolu mooy mooy li ko sant bu ko defee baax na bu ko defut daf na warteefam mm-hmm. jottali lañ ko sant mi na ko jottali mhm. na ko ci waar na ko ci xub loolu lañ ko sant waaye bàyyi xel ne ñàkk sangu janaaba du tee jigéen di mën a jaxasoog moom mhm. ndax julli gi ba ak julleem moo a wér ak noonu mhm. waaye nag euh, bu bëggee jaxasoo ak moom du tee mën naa jaxasoo ak moom du ci du ci yàq dara waaye nag war naa fexe ba xam ne ci warteefam la qu anfusakum wa ahlikum naaran kon ci soxnaam ci jabootam la bokk kon moo ko war toq ci mu xam sangu bu fekkee xamu ko bu fekkee mënu ko it ma war a fexe ba mu man ko bi ci des it loolu mu ñaaw njort na gëstu ba xam ni ñu koy defal waaw waaw na ah, ah. ko waaw yow de sa cangaale gaaw na ndax sang nga mm-hmm. bu ne nii daal def def nii bu fekkee noonu la ñuy sangoo mu ne ko alhamdulilah bu ne ko ni def nii mu ne ko du noonu mm-hmm. kaay moo xam la ñuy sangoo ah. daamta yow boo liggéey mu sangu yóbbu ko yoon mu sangu mm-hmm. ndax taxawu naal bir wa taqwa la gisee ne mënu ko te moom mën na ko ci jàppale bu kii na ko yóbbu ci kanam sangu ko. dëgg la de xam ne sax maanaam soxna si sangu war te joxe ndekki ndax ba nga loolu ñu koy wax rek ngir xeetu jàngale la waaye nag jotewuñ jotewuñ maanaam sobe boobu. loolu hmm. luy taqe. Hmm, dara loolu hmm. luy taqe. waaye nag eh, day tax du du du mën a du mën a jaamu yàlla te fekk jaamu yàlla war ko. war a julli du mën a julli du mën a laal kamil yooyu it. mën bàyyi xel. kon soxna si bu demoon rek ubbi saas bi yéene sangu rek ubbi saas mu xel loolu daq ko dara waaw bomb fi mu a bomb foofu waaw sangu daal waaw loolu wax dëgg nii dañ koo sopp na toftale nii dañ koo sopp waaye nekkul sart ci ne faaw nga defee ko noonu ca ngay doolu wér mm-hmm. li ci mënta ñàkk mooy yaram yëpp na na nga bomb fi foo a bomb te yéene sangu na nga yéene sangu macha allah loolu am na solo eh, sëñ bi moom daf mel ne dafay laaj eh, maanaam aaya bi dafa wax ne dafa bëgg daal ne sunu borom da ciy wax subhanahu wa taala innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun fa subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turjaun waaw loolu de eh, sunu borom subhanahu wa taala ko dundal ko faatu loon wax mm-hmm. xam nga loolu yéefar yi jàpp ne doomu aadama nu dee ba noppi di dekkiwaat mm. borom bi wax ne mbiram weesu na loolu yàlla dara mbirum mooy bu namee mbir. nekkal la wax mu nekk maanaam nam ko bëggee noonu lay nekk wax ne euh, tudd naa seetlu yàlla mi nga xam ne. Mhm. lépp ci loo xam la ne. Mhm. te it ñii di ñu doomu aadama yi ci moom ngeen di dellu. day mhm. dëgëral la ñu wane ne kenn wërta jaaxle ci yàlla dana dekkal ñi deewoon. sos sos nit moo gën a jafe dekkalaat ko. ndax ci da ci aadam la ko jële waa kii lu bokk ci moom mi ngi foon. nga jëlee ko fi dëkk delloosi ko. Hmm. ba koy sos kay ci fu jógul fenn moo gën a hmm. jafe. moo gën a jafe moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne foofu. Hmm. mbirum mbirum moom suñu borom du du yéen lu ngeen jàpp ne lu ja daa am lu jafe ci moom. wala lu jomb ci moom wala lu mënta nekk fi moom. xanaa lu mu bëgg ak lu mu bëggul lu mu nam ak lu mu nam waaye ida arada shay'an yaqul lahu kun fa yakun. lu mu nam rek day am te na mu ko bëggee amee lay wallahu taala alam si macha allah beneen laaj bi ci topp it xam naa ab aaya lay laaj moom it mu ne bëgg na nga leeral ko wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutilan inqalabtum waaw aaya boobu it dañoo wax ne ci xasuwatu uxud la wàcce woon hmm. bu ñu siiwalee ne yonent yàlla muhammad euh, génn na àdduna waaye daal faat nañ bakkanam ci biir xare bi mhm. ñenn ñi sax tàmbul daanaka xaw a découragé ba bëgg bëgg bëgg bëgg yoon jox ci xare bi mhm. suñu boroom wax nag ni Muhammad nag na ngeen xam ne ndaw la ñi ko jiitoo nekk ay ndaw wa ma Muhammadun illa rasul xadi xalaat min xablihi rusul mhm. afa immaata bu faatoo walla leen xew ci moom da ngeen delluwaat doon ay yéefar bu faatoo walla ñu ray ko da ngeen delluwaat dellu ginnaaw doon na ngeen doon. Uh-huh. déedéet ku ku ku jaar fi mu war a jaar yàlla dana sant da da yàlla dana ko fay lam ko da fay. Uh-huh. waaye bàyyi leen xel ndal Muhammad nii du kuy beel nekk na ci seen biir di ànd ak yéen waaye bis dana ñëw bu dem ni ki nga xam ne ña ko jiitu woon ñëpp nekkal fi yàlla woote ba seen waxtu dem joote dañoo dem. Uh-huh. kon ku aj sa mbir ci ne bu wax Muhammad génnee àdduna ma génn ci diine ji kooku kon sa pas-pas dëgërul. ndax Muhammad wuute wuute ña ko jiitoon ci wàllu boobu mm-hmm. ndaw yàlla la waaye dóoru ndaw loo xam ne nag da cay boole nekk xaalit mm-hmm. du fi jógu faaw déedéet rek la lu fi dund bu dig bi jeexee mu dem mm-hmm. ay ay yonentu ñoo ko fi jiitu woon bañ jeexee dañoo dem moom bu jeexee lay dem kon de aaya bi ci ci loolu la ci borom xoox wax macha allah tegal na ci benn aaya la laka min al amri shay'un aw yatuubu alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun waaw ah, laysa laka min amri shay'un hmm. foofu it day mel ne dañuy wax ne loolu ab ab ab bu dugg ci biir ba muy wax ne yow it na nga xam ne ñuy tuub ak ñu ñàkk tuub hmm. sa yoon newu ci yow daal la sant mooy jot li wote yàlla hmm. danañ tuub wala yàlla da leen di teg ab nattu wala da leen di jéggal wala day dimbugal loolu ci loxo yàlla ne koy nekku mm-hmm. sa loxo mm-hmm. yaa yow daal wooteel nit ñi waaye nag il faut leen de mm-hmm. moom moo leen de banaan kii def naa ko def lii kii naa ko def lii ay salaka min al shay suñu borom mu ci coobareem moo leen di moo leen di moo leen di euh, nangol seenu dugg ci diine ji wala mu teg leen ay nattu wala mu mbugal leen boo liggéey bu waaye yow loolu li sant daal mooy wooteel jottalil kàddu yàlla yem ci waaye bu bu bu leen atte bu leen atte ndax atte nekku say loxo. Hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, mbokk yi dafa laaj ma ne ndax jëflante bi nga xam ne gis na lenn ci commerçant yi surtout rawatina ñuy jaay gerte euh, dañ koy def mu ne léegi day waxtu day jot ñu joxe njëgu gerte goo xam ne kilo bi 500 la ñuy joxe xaalis bu toll noonu ñu xaar ñetti weer wala ñeenti weer prix bi yéeg dem 700 su ko defee dañuy xayma euh, njëgu li ñu ko joxe woon li joxe woon rek. delloo ko boroom ak bénéfice bi nga xam ne moom lañ am muy laaj ba xam ndax loola dagan na war wala deet maanaam li ñu joxe 500 euh, bu prix bi yéegee doon 700 ñu jox leen njëgu 500 ba noppi séddoog ñëw ak bénéfice bañ ca am wala ndax dañoo war a joxe li ñu jar fi mu nekk nii euh, lañ ko war a xayma ci li ñu jar ci 700 yi wala deet bu fekkee dégg naa laaj bi da bu wax ne masalan koo xam daal da wax ne la gerte mm-hmm. lay jar mm-hmm. nga jox ko téeméer mm-hmm. ñu dem yàgg mën la gerte gi kat. 700 700 la. Mhm. daa lay jox 700. Mhm. bu dee loolu la bu fekkee jënd na gerte. Mhm. jaayaat ko. dagan na fekkee nag gerte newu fi tudd ko tudd waaye newu ci. kooku dalaa la téeméer fay la 700 loolu riba la. xam na nag jënd ko téeméer teg ko. waaw moom yàgg ah. gerte gi jar 700 mu jaayal la ko 700. jox la lépp wala mu jox la ci téye ci. ci li juboo bu fekkee yéen a ci déggoo loolu te xamis na ko waaw moom ku nekk ci diggante bi moom du am xaalis yow yaa yor sa xaalis ñëw joxe loolu la jub la wax waaw li mu bëgg wax mooy ndax bi nga ko joxee xaalis bi hmm. dem na jënd gerte waaw loolu la wax da jënd na gerte laa wax waaw bu fekkee dafa jënd gerte hmm. teg ba muy jar hmm. mu dem yàgg gerte dem ba sept mu jaay ko xam na kon téeméer téeméer bi mu ko joxoon jënd na ci gerte ci bu mu am bénéfice deux cent franc hmm. mun la deux nag am nga ci mu am a bokk di liggéey wala bokk xiraat la dalaa jox xaalis ngeen di liggéey waaye damaa bañ mu doon loo xam ne tuur gerte amu fa xaalis xaalis xaalis la moom mënul dagan waaw su day mel ni da ngaa leb téeméer di fay téeméer ak hmm. la moom yow jënd nga ci gerte jaayaat ko hmm. loolu bénéfice la woon ci juboo ndax ñu bàyyi xel nag loolu bu amee yéen nag jëflante la boo xam ne bu perte amee da ngeen bokk perte waa ji fi ne tey bu jëndee gerte gi téeméer bu yàlla dogaloon ñu dem waxtu ba mu ko doon jaayee 700 mu jëw di jar 400. 400 mhm. la la la la lay delloo. Mhm. waaye du la fay 100 francs yi ci yi ngi perte. Mhm. ndax ar repp xasaara ci xiraat day nekk diggante ñaar ñi seq liggéey bi bénéfice bi ak pertement bu amee. ñaari ñi seq liggéey bi ñoom ñëpp la dal seen kaw. buñ amee bénéfice bokk séddoo waaye buñ perte yëg bokk perte. ndax yow perte nga sa xaalis moom perte na ay coonaam yi mu coon ndax amul dara. loolu daa war di leer. Hmm. naam loolu am na noppi waa ji yàlla dogal gerte ga lambu mu ne ko man dama la jox. na ñoo xam ne duñ ko d'accord ñu naan la sama xaalis. waaw nag da bokk liggéey war a leer ne bokk liggéey la. Hmm. su perte amee da ngeen bokk perte yéen bokk perte. Hmm. bénéfice amee war ngeen jubóo it bénéfice ñaata lay doon. ndax dañ ko dëgg ci dëgg bi nisfu nisfu wala kii day jël sulu saa ki jël sulu. daa war a leer dal war a ñu xam li mu ci am jërëjëf Serigne bi xam naa kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy sopp topp ci émission Gagganteku. jërëjëf Serigne Daab naa di leen sant di sant mbokk yi bàyyi xel jotaay ñu ko waxee mbokk yi ñaan yi yàlla ko yàlla nangu te boole amiin ah, di wax ne jotaay bu am solo boo xam ne eh, ab julit lépp lu ñuy def ci diine baax na mu leer ko mu door ko def ndax mooy tax nga ko def ñu uh-huh. ñaan suñu borom yéen dëgër leen dooleel leen uh-huh. sàmm leen a ngi uh-huh. xam seen diine nga mën ko rafetal jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane ñu ngi lay ñaanale yow suñu borom defal gudd fan ak wér ak kattan ba li nga yéenee liggéeyal yàlla ci sa xam-xam lépp nga man ko euh, te yàgg lool barakati xaadim rasul ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ndax fu ne ci àddina bi la yónnee ay message ngir seen diine euh, bëgg cee xam lu leer kon loolu it ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax di sant it mbokk yi nga xam ne ñooy tisaare waxtaan yi ci yeneen support yépp ndax fenn fu nekk lañ koy dugal ngir di gën a yaatal mbir yi ngir nit ñi mën a gën a xam seen diine euh, ni ki noonu tamit kon mi ngi fàttali rek ne képp koo xam ne am nga ab laaj booy laaj muy laaju diine mën nga ko yónnee ci numéro bii 77 531 91 98 wala nga yónnee ko ci 77 678 57 66 boo ko ci defee incha allah laaj bi dina agsi ci Serigne Mbacke Abdourahmane mu tontu ko mais ñu fàttali na tamit buñ koy tontu ci émission lañ koy tontoo. ci émission bii la ñu kon da ngeen di abonné ci MKTV wala GMT ngir mën a jot émission bi saa su nekk émission bi le 23 bu nekk ak la 9 ci weeru tubaab bu nekk lay ñëw kon ñu ngi leen di sant di sant Sëriñ Abdou Khadir mi réalisé émission bi ak sunu cameraman yi Serigne Mourtada Ka Serigne Bàcc Ba ñu ngi leen di dig daje incha allah ci seen beneen jataay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم